ma ne Sénégal dañoo yeewoo naqar yeewoo tiis lu dal ci kenn ci réewu Sénégal rawatina ci njabootu làmb mu ngi ci làmb ji mu ngi ci diine ji mu ngi ci aada ji mu ngi ci cosaan ni muy Abdoul Aziz Ndiaye Abdoul Aziz Ale Ndiaye jabaram moo génn àdduna aawam moo génn àdduna mbokk yi muy génn àdduna boo xamante ne bett na ñëpp waaye bettul suñu borom ndax ci suñu borom la ñu jóge te suñu borom la ñuy delluwaat te suñu borom jëlul alalu kenn alalam la jël waaye fi mu ko defee nag moo xaw a metti may wax Aziz ne ko gën a bees le rek moo am Assane Ndiaye waaye gën a metti le amul waaye nag naqar wi gën naa yomb ci moom gën naa woyof ndax ñëpp a teew bu dee diine ji waa kër maam ji Malick bi mu yaakaar kenn desul bu dee waa kër maam borom Touba kenn desul bu dee laayeen yi kenn desul bu dee le kenn desul ñëpp ñëw bokk ak moom naqar wi man de wax dëgg yàlla bokk naa ci ñi fa njëkk ndax li ma am ci Abdul Aziz yaakaar naa ne ñi ko am ci moom bariwul li ma am ci aawoom yaakaar naa ñi ko am bariwul ndax invité naa Abdul Aziz fii ci télévision Futur Média aawoom jooyloo ko Aziz yëkkati ay kàddu yoo xamante ni keroog la la nit ñi mës a gis soxna Abdul Aziz boobu nga xam ne moo génn àdduna mu témoigner lu doy waar ci jëkkëram daal ne demuma dikkuma sëy rek laa xam te it Abdou Aziz bi may jël fekk na sama waajur wu jigéen génn àdduna sama waajur wu góor génn àdduna ma nekk ak moom mbokk yi dañ leen di fàttaliwaat loolu yi nga xamante ne nii soxna si Abdou Aziz boobu waxoon na ko ci biir joŋante ñu fàttaliwaat leen wan leen soxna si mooy kan di wax leen ni ah làmb am na tiis am na naqar waaye Abdou Aziz nangul na ko nangu na ni suñu borom. mooy jël suñu borom mooy joxe ñu dégluwaat soxna si li mu waxoon ci joŋante il y a deux ans nit ku yëg ay mbokkam man tey ji boo gisee ma fonk dafa bëgg ay waajuram moo tax man mii tey ji damaa ñàkk damaa teel a ñàkk waajur mais Aziz Ndiaye moo tax tey ji su ma toogee duma xalaat sama yaay duma xalaat sama pàpp ndax moom sono lu ma ci dara lu ma bëgg loolu la bëgg lu ma wax loolu la baax sagal ma sagal samay rak sagal samay mag tey ji mi ngi jël sama mag bu góor suñu taaw teg ko ci wetam liggéey ci moom tey ji bu ko neexoon du ko def mais Aziz Ndiaye moom dafa nekk nit koo xamante nit ku oyof amul benn problème dañ koy ñaanal yàlla daal lu mu bëgg yàlla ko suñu borom bi defal yàlla jàppale ko ci kanamu njabootam bàyyi njabootam màgg ba koy fay lii muy def ndax man mënuma koo sant ndax daf maa defal lu rëy daf maa jàppale tamit ci lu bari moom moo tax daa jooyu ma yaay jooyu ma pàpp di sant sama gorotam mi xuj a jóob moom it daf maa jàppale ci lépp at ale Ndiaye samay njëkke bàyyi ma kenn man yàlla daf ma dimbali man samay waajur sëy lañu ma sant léegi ma ñëw dugg ci kër gi tamit Aziz Ndiaye di jóg di daanu ma nekk ak moom dama ko bëgg ndax bëgguma ko ngir alalam bëgguma ko ngir dara dama ko bëgg te yàlla tax ma nekk ci wetam nekk ak moom du ko jàppale nag ci lu bari xooluma daraam bu ma joxee baax na bu ma joxut baax mettee teewut xujo jóob tamit daa nekk ci côté bi tamit di ma jàppale su ma toogee su ma yor moo may jox su may dem xew moo may jox léeg-léeg damay dugg sama biir nekk fekk mu tegal ma ay yére du bàyyi gañ laa du bàyyi jasneer du bàyyi brodé du bàyyi dara te ji bu ko neexoon du ko def boobu liggéeyam xaw na yàqu ba mu dem bitim réew ah, dëgg la te ma nekk toog ci kër gi tamit du muñ ndax sëy rek laa bëgg xaw ma caaxaan xaw ma taxawaalu kenn du ma gis fenn toog sama wetu jëkkër di ko jàppale lu ma jox baax na lu ma joxut baax na sonalu ma ko ci dara te man yàlla daf ma dimbali xaw ma wax xaw ma dem xaw ma dikk toog sama wetu jëkkër samay wetu goro samay njëkke lu may def samay njëkke laa koy àndandoog def lu may waxit sama goro laa koy waxal ndax bi mu mettee saalitoon na xawoon naa saali tuuti nag <laughs> waaye nag dafa nekk nit ku baax ku am ngërëmu waajur moo tax nag daraam du yàqu te pare du sonn ci dara ndax dafa nekk nit ku baax Aziz Ndiaye moom dama koy ñaanal yàlla rek yàlla bàyyi ko ci suñu kanam ak ci kanamu njabootam bañ koy weere ko weer moom nag yàlla di koo dimbali musta tàng moom moom dafa nekk nit ku oyof Aziz lu na lay def day fa day fo day kaf day rey sax da koy def dafa nekk nit koo xamante ni moom man dama cee sant yàlla ma yàlla boole ay Aziz dama cee sant yàlla bu baax ndax dafa nekk nit koo xamante ni amul problème mu àdduna foo ko tàggu mu ne la demal du la tere ci dara loo soxla la mi ngi nii su ma amee problème su ma ko waxee mu taxaw faj ko mu jeex samay raq samay mag la même chose moom nag bëgg na lekk trop mais moom ceebu jën daal la gën a bëgg moom <laughs> ceebu jën moom bëgg na ko trop chéri je t'aime beaucoup dëgg la ki way way wi dem na ki ñu wane léegi ci photo bi dem na bu ngeen gisee photo bi mujj léegi bàyyi njaay la ak euh, soxna Aziz Ndiaye bi en 2002 la woon ngeen gis ni que soxna si nit ku sell la woon mais ngeen gis ni aussi itam àdduna amul benn solo waaye Aziz am na lu mu tontu woon bis boobu soxna si tontu ko Sénégalais yi mais ku liir Mansour jërëjëf ku liir statut Aziz Ndiaye xam ni sëy rek moo am solo parce que jigéen sëy na ak góor cinquante ans te li Aziz wax soxnaam si góor waxu ko ko wax na ko wax ju rëy waaye fii kenn dëkku fi déglu leen Aziz lim tontu keroog soxna si ci jongante ngeen xam ni dëgg rek moo wóor ñu ñëpp suñu borom lay la ñuy dellu yàlla na yéex waaye nañu ko rafetal ñu déglu Aziz Ndiaye. maa ngi ko takk en quatre-vingt-dix-neuf. Mm-hmm. Mosul fay. Mm-hmm. def nañ seize ans de ménage comme ni mu ko waxee rek waajuram ak bu góor ak bu jigéen dañu teel a génn àdduna mu jël ma def ma papa def ma yaay fekk na bi muy metti fekk na bi fi dara nekkagul mu fekk bi mu metti fekk bi lépp di yàlla def sutura ñuy sant yàlla macha allah yàlla yàgg nga xam ni moom dama koy ñaanal c'est ma suma jabar la mais nit ku baax la nit la koo xam ni ku oyof la comme ni mu ko waxee rek tey soo tegoon fii dix millions li mu ci soxla rek lay jël du ma sonal ci dara du ma ni jox ma duma laaj lu ma amul du ma teg fitna du ma teg coono kon dama koy ñaanal yàlla ndax jigéen bu demee bu jural la ki nga tuddee sa papa ak ki nga tuddee sa yaay mm. danga ko war a ñaanal mu gudd fan ndax moom loolu la ma defal mm-hmm. kon maa ngi koy ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na ko yàlla saxal ci kanam njabootam mbokk yi kon muy noonu ah Aziz Diallo baa ngi noonu bu groupe Futur Média Aziz Diallo baa ngi noonu bu monde de la lutte Aziz Diallo baa ngi noonu ndax démb dafa am lu doy waar lu xew man maa woo Ndiaga wax ko ko maa woo wax ko ko Birane démb maa ko doon tegtal kër Aziz Ndiaye te xam naa ni Youssou nduur du ko lu xam naa ni kenn du tànqamlu Aziz Ndiaye ndax mësta lu kenn ah si jaale baa ngi noonu <laughs> suñ borom jëlul alalu kenn alalam rek la jël léegi dama bëgg ñu dépasser stade boobu parce que àdduna lii moo fi ama ah, demal maa ngi ñëw gaa ñi dañuy dem ñii di ñëw léegi waaw maa wax nga dëgg de barke rasulullahi xaayaan ku dégg séeréer xoolal kër Baay Ñas mi ngi toj réew mi El Hadj Seck parcelle unité 4 xoolal ci kaw bu ci suuf eh ku yor caméra bi ci dàll yi <laughs> eh, jaa ngi fàtte ku caa ana dàll yi xoolal la Hadj la gis nga yéegal xoolal ku ko mën la ak ku koy jéem cent 404 bokkul ak ngontum avion le meilleur des émission le meilleur de télé mi ngi noonu léegi nag dama bëggoon am lu ma ñaa xarañ loo abal tuuti rek xam nga ñaa ni lay def du ay foo du ay caaxaan du ay foo du ay caaxaan xoolal tey laa leen di wan ni Futurs Médias du ay foo du ay caaxaan tey laa leen di wan ni ni on ne pas faire la lutte ici au Sénégal et ailleurs sans associer la télévision Futurs Médias tey laa leen di wan lu garaaw a garaaw a garaaw a garaaw a garaaw mbokk yi lu ma leen mës a wax gëm ngeen ko waaye tey combat VIP bu mag dina taxaw fii fii fii fii fii fii fii fii ci jongante déglu leen ma bu baax a baax a baax on peut pas faire la lutte sans le groupe Futur Média dans sa très grande majorité ma ne déglu leen bu baax a baax li ma leen wax dama ne kenn mënta def lamb fii ci réew mi ak ci bitim réew ak foo ko mënta defee associé si associé ci Futurs Médias mooy togg nga ceeb xorom ko déedéet da nga ko xorom ba pare def ci suukar def ci lem kuy lekk loolu amul kenn ku koy lekk léegi nag tey ma